ñew jël place Ousmane Sonko entre guillemets yombul c'est-à-dire le président Ousmane Sonko c'est un leader politique très charismatique et très très imposant en fait ya ngi pendant une décennie mu jàkkaarloog état bi nek un leader incontesté déjà dans ses rangs ñëpp nangul ko mu am ben légitimité bu extraordinaire def ben liggéey bo xam aduna yépp dañ koy nous sommes bah, à quelques mois des élections Nous gagnons un jeune un jeune je dis bien un jeune limite la quarantaine mu Wara, en fait am le président Ousmane Sonko c'est-à-dire man nous. nous, parce que les gens veulent nous vendre un Bassirou Diomaye avec son caractère man dinaa ci nous mais dama bëgg patriote pas xel ci benn affaire bu nous mës nous mbir le président Ousmane Sonko moom moo fi nekkoon nek un leader bu imposant tay le premier mérite de Bassirou Diomaye c'est d'avoir eu la capacité de combler ce vide boobu non nga xamni ñu ko don xaar en fait c'est extraordinaire. léegi nak lan mo tax lolu non possible avant maa ñëw ci yi nga xamante ne presse bi ak ñen ñi ñu ci bëgg duggal dugal te amul jari gis nga limay wax rek nek ci gannaaw président Ousmane Sonko yombul pour kenn. mais aussi nga am la capacité ñëw au devant de la de la scène ba mën a jël ba mën a am taxawaay boo xam dina ko am ba patriote yi déjà nga am ci ñoom benn taxawaay boo xamante ne nii nekkatuñ ci problème wu est-ce que mën na wala mënul mais nga dem aussi ba keneen ku dul politique ba sénégalais yi nangul la ko loolu mooy premier challenge bi nga xamante Bassirou Diomaye réussir na ko mu nekkoon prison politiquement parlant ñu bëri jàngat ci euh, ci politique que ne Bassirou Diomaye mu nek ci biir prison bi moom mo gën mu génn parce que bu est duñu gis ay fayam parce qu'on n'a jamais eu parce que ces gens-là ne mettent pas en avant les qualités de Bassirou Diomaye et même il y a des patriotes qui sont tombés dans ces pièges de nañ ko en prison mu campagne gagnée parce qu'il y avait ce truc-là qu'ils nous ont vendu est-ce que dina mën tenir est-ce que dina mën li est-ce que dina parce que ils ont voulu nous mettre dans la tête en avant ay soi-disant limites ak ay défauts mais ils n'ont jamais voulu mettre en avant ses qualités et c'est pas ces gens-là qui le disent Nous avons dit que Bassirou Diomaye bi dans l'administration sénégalaise dafa admis ñaari concours yi prestigieuse prestigieux du moins au Sénégal xam Bassirou euh, Ousmane Sonko président Ousmane Sonko dafa ñëw admis concours ENAM Bassirou Diomaye dafa ñëw admis concours ENAM admis concours magistrature yaay yeeg suñu papa yi jàngul laaj leen seen doom yi jàng lan mooy concours boobu sénégalais yi xamul luy ENAM wala luy magistrature dem leen ngeen laajte lan mooy concours yooyu maanaam concours yooyu ñi mën ñi ñuy woyee karat ñi dox ci jàng ñi nga xam dañoo ñi nga xam ay ay sudduweel ñoom ñoo koy at mi Sénégal maanaam ku mën a jàng ba si jomaay at mu ci benn de mu am ñoo cee ñaar ñi ñi di rayante pour am benn bi moom mu am ñaari téye ko ci loxoom

de la même façon que président Ousmane Sonko dafa armé concours ENAM dugg biir ENAM en 2005 mu dugg fa 2003 ñëw imposer le syndicat des impôts de à Ablaye ce que les gens oublient que c'est même syndicat de Ousmane Sonko téye woon gannaaw moom keneen téye ko su ma juumul waaye li bojaan la Bassirou Diomaye Faye dafa ñëw téye ko yaa ngi dégg yaa ngi dégg ngeen un ma gars yi wax concours ENAM ENAM la tuddoon léegi ENA la donc, ce que les gens oublient, moi, Basir a été le, secrétaire général du syndicat des agents des domaines. Signifie que nous le secrétaire général du, syndicat. Vous pensez que le mec, il a un parcours en fait. C'est dommage que nous on n'a pas le temps dans densité de de ramener Basir mais qui est kanam duko kanam dugg place Ousmane Sonko fees ko dellu du sénégalais bu nee ko mën du intellectuel bu nee ko mën jàkkaarloo Ousmane Sonko ci xam-xam mu toog nangu leen ne yow de sa xam-xam mët na sëkk dama lay bàyyi nga dem ak projet bi ci wàllu xam-xam ma ñëw xeex ak gaay ci wàllu politique ndaxte yaay yow yaay yow yaay yow yaay candidat bi. jomaa yi ñëw dans Pastef fekk fa ay magam fekk fa ay ragam mais fekk fa lu ci ëpp ñu ko mag. Bassirou Diomaye ñëw teyé cadre lan moy cadre dans un parti politique bu melni ni nga xam au début dañu doon wax ñun benn parti élitiste lañ manam parti bo xam ay ko ay ñu jang rek ñom ñoo ci nek mu fekk fa ay junni junni sénégalais moromam ku nek jang lu ñoo ñu jël ko jiital ko parce que xam nañ ci walu xam-xam woru nañ ko ci doyul de ñu jël ko taftal ko ci diaspora ne ko teyel diaspora bi mu def liggéey bu am solo les gens oublient que tey bu ñu toogee ba ñun diaspora bi nous est-ce que nous na campagne nous am ñu ñu campagne parce que tellement il n'y a pas d'opposition ici en tout cas il Bordeaux fi ma amul opposition il n'y a pas d'opposition ici il n'y a pas de benn bokk n'y a rien du tout ay n'y ici, il n'y a pas qui chapeauté loolu diggante Chine Japon Inde Afrique Europe ba dem ba Brésil foo mënti dem ci àdduna Bassirou Diomaye coordonné diaspora ba ba da ngay respecté Pastef wala nga koy ragal diaspora bi bokk na ci li ngay bàyyee xel loolu mooy liggéey Bassirou Diomaye bi mu def dans Pastef mu jóge fa ñu tëggaat parti bi wut yeneeni Sénégal yu ñëw fekk ñu ci ci projet bi ñu yaatal ko mooy ñoom Yacine Fall dugg seeg ñoom Guy Marius Sagna mu jóge ci yor cadre yi yor diaspora bi ñu ko garab def ko léegi le secrétaire général du parti secrétaire général du parti daanaka moom moo yor parti bi C'est ça le parcours de Bassirou Diomaye. Et dis le Bobo Pastef était le parti politique le mieux organisé et le plus connu, le plus populaire au Sénégal. Bassirou Diomaye, c'est un secrétaire général. Fait que fa ay les yo les anciens les gens de la gauche. Fait que si nous ñu fi nekkon ñu ont ko ko Bassirou Diomaye jox parti bi secrétaire général du parti. C'est ça Bassirou Diomaye. C'est ça Bassirou Diomaye. Bassirou Diomaye, c'est l'un des jeunes Sénégalais pionniers de cette vision, de ce programme de pasteur bi nga Sénégalais yépp approprié en fait. donc tey il faut que m'explique explique Il Il y a beaucoup de gens qui nous disent maintenant ñu doon xaar mu def faux pas ñu le xaar mu génn ils savaient pas que même dans les idées, et je le dis ici, le président Ousmane Sonko, Deglou, Bassirou Diomaye est plus structuré que ça sur le plan des idées que le président Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko, il a sa façon d'être, il a ses fougues. C'est pour vous dire une chose. Que de Bouni Nan Diomaye Moïse Sonko, Diomaye Moïse Sonko, tu une vision Bouni Am. Diomaye Moïse Sonko, tu un parcours Bouni Nurolé. Diomaye Moïse Sonko, tu xaritoo Bouni ñu nek nekk ay doomu ndey ba tuddante doom am ci

Diomaye moy Sonko Sonko moy Issa Diomaye moy Véronique Sonko moy Amina El Malik moy moy Pape Bassi keneen ak keneen parce que mom moy projet de ñu porter en fait loolu mom moy bu jëk bi la deuxième chose il faut pas confondre une stratégie politique parce qu'il y a un discours politique il y a de la communication politique mais comme ñoom xamuñu fu ñi jaar Ñom lu ñu bëggol moy tënk ñu ñu ci ay soi-disant ñun principe yoo xam dañu ko woote ñoom ñu bëgg ci ñoo tënk que ne yéen da ngeen di lalu ci loolu. boobu fàtte nañ que ni sawaay li fi juddu 2014 ba 2024 mu jël paie ay caaxaan téyewu ko quand les gens ont parlé ici de dialogue man dama def fii live ne leen le président Ousmane Sonko n'a jamais refusé le dialogue parce que nit ñi dañuy bàyyi li nga jëf bàyyi li nga wax ak li ngay xalaat ñu ñëw bëgg a def li Babacar Fall di ruube. wala li Madiambal Diagne di ruube wala li Maïmouna Ndour Faye di toog ci plateau di ko fen moo ak Cheikh Yérim ñu bëgg a def loolu ay idée loolu moom moo indi cette fameuse truc laa ce fameux truc là de Bassirou nee na dafay jël dafay jël capital bi yóbbu ko Ziguinchor gis nga système bi bés bu ñu fenalee ñun patriote wala ñu sosal ñu rek tàccu leen seen bopp xamul tax parce que ba Bassirou Diomaye di génn ñoom ñëpp ñu ngi taal seen caméra yi ubbi seen nopp yeeg seen kii naan kañ lay def faute lan la nar a wax Bassirou def premier discours ba muy génn président Ousmane Sonko génn ca fajar ne ñoŋlu dem ne ko waay saay terrain baa ngi sol ay dàllam dugg ci biir fuul bi dem ba fi nit ñi gën a bëree mu génn kenn gisul Ousmane Sonko mu tenir la foule avec un discours ñu xëy la lendemain ale yi naan ah ana Bassirou ay dëmboon ni maa ngi xaar basiiru docteur Abdourahmane Diouf ne maa ngi xaar Basirou yeneen ali la ñu ngi xaar Basirou ki nga xam moom la ñu war a tëye ànd ak moom dooleel ko ngir mu nekk suñu njiitu réew Basirou dugg ci salle bi. les gens ne parlent pas de ce discours c'est un discours en wolof de 19 minutes et je conseille à tous les patriotes tous les sénégalais ñu dem déglu ci discours boobu noonu. jour boobu la Basirou dalal xelu allié yi jour boobu la allié yi ku ci amoon sikki sàkk ak ruube presse bi sa sa xel dal mu def un discours d'un leader le discours d'un président, le discours d'un savant, d'un sachant. loolu moom moo leen jaxase jànnaxe leen lañu don wax que ne Bassirou Diomaye bu togué prison moy gëna a avantage ci mom parce que bu génnee def ay ay ay def ay ndombé bu waxé ñu mën ko critique Bassirou Diomaye génn jël niveau bi tek ko fi ñu am problème légui di ruube

Nous avons de la tombe bi ne ko fa tacc ko fa place ramener cette dualité au sommet cette cette bipolarisation dans une stratégie politique Si nous kenn dañu nous critiquer ñun pas Nous, Amadou Badi wo ñox ci wax di wax ci ñun TV5 ay favori New York Times naan nous ay favori dañu ko nous rêvons ñu def du tay def nañ seen le un leader responsable ko am le sens de la responsabilité le sens du devoir xam li mu sens xam la parce qu'à un moment de l'histoire le président Ousmane a compris que j'ai un projet fi ma gaay di xaar fa génn ñu ñuy xaar bu ñu radical politique bu ñu ñëwee def ci politique ñu ne ñu ngay diil ñoo tay pour ñi bëggul dégg mais ñi bëgg comprendre xam nañ li xew ñu ñëwaat créer cette dualité bi am que ne yow Macky Sall bi mu ñëwé Ousmane Sonko mo njëkk écarter Macky Sall dans son discours ne du maag Macky Sall Macky Sall a la responsabilité d'organiser des élections té ku ne xam na ne li gënné prisonniers yi. li génne président Ousmane Sonko wóor na yàlla mooy li gën a ndaw li président Ousmane Sonko di sàkkul Sénégal ci Macky Sall te lu ñuy gën a avancé ngeen koy gën a gis campagne bi amul benn problème élection yi du am benn problème man ci li ma jot a xam lu ndaw ci président Ousmane Sonko libéral détenu politique yi libéré ma muy li gën a ndaw li ma mën a sàkku ci njiitum réew ngir Sénégal jàmm rek ay am élection mooy am dañ ciy dem ci jàmm te dañu koy gañe bu soobee yàlla mais dualité bi mu ràmmane ba gannaaw ba mu ne man damay taxaw Bassirou Diomaye may juuti wane na ko ca génn ga dindi Macky Sall seppi teg fële ñëw ne Amadou Ba léegi yow la gis nga ce qui est très intéressant ma bàyyi tuuti Bassirou ñëwaat ci plan Ousmane Sonko mooy cette dimension politique de l'homme bi nga xamante ni à chaque fois dina yàgg di bett gaay parce que les gens ne le prennent pas en compte en fait gis nga amadou ba il était dans un dafa nekkon ci ben dafa nekkon ci ben confort bu extraordinaire duma wax duma def dara télé yeeg radio ñomay waxal dañu may tag man duma def dara dana fa genn force bo bëggee waxuma la bo bëggee jël élection de bo bëggee xeex ak pastef da ngay mbapat ñun bo bëggee bërek ñun da ngay mbapat ku weddi rek la jëm ñeneen ak ñeneen ñi fi jaar ku ne jaar na fi ku ne jaar na fi Amadou Ba mu koy neex mu koy naqari na ma ko waxee woon si samay live yi mu junne Macky Sall mu koy neex mu koy naqari Bassirou du génnee Ousmane Ousmane du génnee Bassirou détenu politique yi Macky Sall moo leen di génnee force nii laa ko waxee woon teguma ko woon nag ci ba buxaa ba gisaane dara c'est une logique politique ku xam fi ñu jóge ak fi ñu jëm man bi may live yi gànne may dalal xel ma ne dalal ma xel dañuy politique chaque jour ma wax parti politique lañ du ñu activiste parti politique lañ dañuy politique tey dañu nekk ci benn moment bo xam c'est éminemment politique yaangi ngi dégg li ci top moy Bassirou Diomaye waxna fi parcours autant ci syndicalisme autant ci politique maintenant Bassirou Diomaye la prend Bassirou Diomaye la ak Amadou Ba du ak Kenen, du ak kenen et ce sera pas à cette presse bi nga xam xam nañ seen responsabilité yi ñu def Sénégal ñoom ñoo ñuy wax nan la ñuy orienté ñun suñu stratégie politique pour jël réew mi ñun jël réew moo ñu tax a jóg on a fini par convaincre les Sénégalais je vous rappelle que lors du meeting de Keur le président Ousmane Sonko dafa toog ne nous avons atteint la masse critique conscient des enjeux de l'heure barke démb Bassirou diomaay ne ko doll ci et qui ose et qui ose s'engager nekkuñu fofu noonu dañu nekk ci récupérer réew moo xam dañu ko yàq système bi yàq ko c'est pas à ce même système ñom ñoo ñuy orienté fi ñuy jaar ak lu ñuy wax bëgguma dudd tur mais dama bëgg patriote li moom ngeen xam ko Mamoudou Ibra Kane fa mu nekk muy entreprise bi mu yor dafa nekk en faillite li may wax ni ñoom xam nañ ko xam naa ko yàggul dara seeni weer yu ñu fay seen salarié yi Marème Faye Sall moo leen ko doon fayal dernièrement Amadou Ba salaire bu génn immédiat Amadou Ba moom moo ko fay dafa encaissé dafa waram ba pat sauf ko amado Ba li mu comprendre ñun suñu combat ak média bi waxuma média bi yëpp de ñi yoon mbubboon média bi di xeex ak ñun duma nañ leen ba ranger leen nële barke de moo njaay la fi kenn genn bugg ñu indil cioma genn fi fii assumer suma position tay mu ngi won ca palais ba audience nee 70000 soixante lañ ko jam mu tuur cinquante litres yalla nako yalla yëkëti ci jàmm mu ngi won palais ba ci audience ma ñun kenn duñu roubé xam na li ñuy xeex kenn duñu jaxass ak sénégalais yi kenn duñu jaxass ak sénégalais yi moo tax ma patriote on est dans un moment politique le président Ousmane Sonko avant mo genn prison bi muy tan Bassirou Diomaye comme candidat daf ñu ne moom gannaaw ba mu ubbeekoo o yeneen leader yi ba ñu koy fekk si tey responsable yi nekk Pastef ñooy ubbeeku woo yeneen responsable ak fu ñu mën a bokk PS ak PDS ak APR ci yem ñun militants yi ñu ubbeeku dalal yeneen militants yi ak fu ñu mën di jógee sympathisants yi ak fu ñu mën di yi dem dalal influenceurs ak fu ñu mën di jógee sax nañu leen dem tàllal loxo moo xam mu tudd Youssou Ndour mo xam mu tuddu Balla Gaye wala Siteu mo xam mu tudd Wally Ballago sek ak ku muy ti doon nañu len talal loxo ngir ñu indi ñu yok ñu doole ndax nu mo gën a pour ñu gagner nonu lañu wara def pour Sénégal pour le projet en sachant que notre parcours prouve que quel que soit par ailleurs nit ku ñuy jëflanteel projet bi rek mom mo am njariñ barke démb on était avec Khalifa Sall ak midjaz tay on est avec nimou Touré et docteur Abdourahmane Diouf ça parle ça leneen li ci des mooy jooyoon nañ fi monde rural bi pacifique patriote yi am nañ ci taxawaay ko mat sëkk tey nag dañu dese cinq jours pour mattali suñu combat lu ne jaar na fi lu ne dund nañ ko fi guddi gu ne dund nañ ko fi lu ne def nañ ko pour wax sénégalais yi que ne Issa Diène mii ngeen di gis muy live saagakat la dafay saaga sëriñ si lu def nañ pour ñu que ne man Issa Diène mi dama violent man sama de judiciaire dafa vierge vous ne sortirez jamais une vidéo bu may saaga serigne yalla dafa ñu wuyu aussi. mais yalla do ko ñaan am lo man patriote ngi def solo mais gis nga ku nekk nga def sa introspection pendant une seconde nga et tu te poses la question de savoir est-ce que def na li ma est-ce que suba quel que soit le résultat du am luma metti dans les deux sens fi ñu jëm ku ci nek da nga wara bind sa propre histoire li fi am ni rafet na mais man pour man quatre jours yi di ñëw dafa wara nek lu gëna doy war. dafa wara nek lu gëna yéme. bu ñuy dem dimanche di yeewu dañu wara am assurance que le réew mi dañ ko wara jël defar ko kon lu way doon def yokko ko lu way doon ragal fi ragal amatu fi nañu ubbeeku dalal Sénégal yépp ñu ñëw le président Ousmane Sonko a fait un discours très responsable en disant que y aura pas de vengeance Il y aura de la justice moo tax que gis nga Ousmane Sonko di ko top. top bi ngeen wax top. ko nii top. ko ci pour moom moo ko le président Ousmane Sonko bi mu jëlee mairie bu Ziguinchor bi kenn déggu ci ciow te def na lam fa wara a def ba mu mat sëkk liggéey na fa lam fa wara a liggéey ba mu mat sëkk loolu rek baromètre là. Pastef n'a jamais appelé à une vengeance Pastef a toujours appelé à une résistance à une désobéissance civique et chaque fois bu Amérique, c'est à cause d'une injustice bu nous leen teg nous yàlla jox nañu quelqu'un bu kenn dugal suñu que nous d'ailleurs à un moment boo ils n'ont pas su faire la part des choses Ils bu toog fii di live man projet passé, mun naa fi toog mun naa toog di live ci Ousmane Sonko mun naa toog de live ci projet Pastef mais dafa am foo xam bi ñu fa tollee dama ne patriote jóg leen ngeen laxasaay ñu dëgër xeex ak Macky Sall ba pare assumé ko ak li ma ci fekk yépp ma assumé ko parce que foofu lañ tolloon regretté wu ma ci dara si c'était à refaire suba ñu taxawaat défendre ce projet là taxawaat défendre président Ousmane Sonko taxawaat défendre Ndongo Diop taxawaat défendre Falafel taxawaat défendre Pape Alé Niang comme on a toujours fait loolu nag tey achèvement bi foofu la ñu yegg si nii tey dañu war a gagner élection yi au premier tour nañu yóbbu spécimen patriotes. ci patriotes bi may patriote les patriotes. patriote nañu dugg ci kër yi jël spécimenu les patriotes. bi won ko patriotes. dugg ci bi jël spécimenu bi won ko les képp le travail de sensibilisation le travail de travail de le travail de de de conscientisation bi nga xam dañ ko wara def may fatali gars li li parti la li mandargawu parti la lepp lo xam parti politique la ak bu muy bureau de vote ba sa vote ba nul may wat aussi gars ben affaire enveloppe vote ba nul mais surtout surtout ku que na def l'effort d'aller voter et de faire voter chaque jour me rappelle quoi. gagner au premier tour c'est avoir 50 plus un vote De 51 c'est avoir 50 plus un vote on sait ce qui se passe dans ces pays xam le système bi di il ne faut il faut avoir confiance que que que ñi nga aussi que yow si say propre force lu yàlla def rek nga xam ne loolu la fi terminer mon histoire d'état histoire om d'état le président Ousmane Sonko avant moo gagné élection waxuñ ko fi histoire homme d'état bi mu jëlee dem jël mairie bu Ziguinchor bi ñu gisee mu yëkkati see sànc yëkkati son projet état dafa daw nekk ko kott ko ne ko doo jóg yow boo jógee ñun ñëpp ñu naax saay pourtant fi lañ fi doon toog ne ko c'est pas un homme d'état amul benn université bu ñuy jàngalee om d'état amul fenn ci àdduna bi. donc loolu non, c'est des débats c'est des débats yoo xamante c'est, c'est c'est c'est des débats stériles pour dire juste que nous nous top orientation bi ñu presque bëgg a jox wala objectif yi ñuy jox. objectif yi le président Bassirou Diomaye tracé n'ako le président Ousmane Sonko wax n'ako c'est d'aller sensibiliser les sénégalais d'aller récupérer suñu carte électeur et d'aller voter en masse pour pare protéger vote bi protéger vote bi. gis nga l'histoire yi ñuy génne li xew ne fi li xew ne gis nga ñun li ñu maîtriser téye ko loolu mooy suñu doole nañu ko nañ ko nekkal ba pare élection législative bi ñuy wax le président Ousmane Sonko affaire wala locale bi ñuy wax waxu fichier électoral le président Ousmane Sonko daf ñu ne fichier électoral bi xeex ko mën na nekk lu am njariñ mais li ëpp njariñ mooy voter ñu compter nga compter protéger ko lim dajale mu rafet. gars yi loolu moom moo doon live bi loolu moom moo doon live bi aujourd'hui Sonko mooy Diomaye dans des idées dans un projet dans une vision dans un programme mais Diomaye à sa personnalité, à son caractère, à son intelligence sociale, à son charisme à lui, comme le président Ousmane Sonko amé Le ci neex nag président Ousmane Sonko dafa jóg ñu ne accum Macky Sall écarté ko dama foog ne nous moo ci ne nous génnee Bassirou Diomaye ñëpp ne et c'est ça et c'est ça la fierté et je suis persuadé que Bassirou Diomaye va continuer à surprendre son monde je vous le dis ici n'est pas Bassirou Diomaye qui va en fait on a le profil d'un bon président. On a le profil d'un Sénégalais qui il peut faire toutes les réformes possibles qui nous permettent de mettre le Sénégal sur les rails du développement. Nous sommes conscients, gars. Nous sommes conscients, Je sais qu'il y a beaucoup de patriotes qui se, disent, qui, se demandent la question de savoir quelle sera la place du président Ousmane Sonko. Non, non, cette question, elle est mineure. Elle est mineure par rapport à défi qui est moi, le système. Le président Ousmane Sonko a toujours eu la capacité de se réinventer, d'exister quelle que soit la situation loolu yalla may na ko et à chaque fois daf ñu doon surprendre te leer na ma ne bu ñu jógee ci élection bi ba président Bassir Diomaye prêter serment dinañu surprendre aussi ci yeneen affaire yo xam ne dañuy dugg ci beneen monde bo xamante ku nekk dina ci gis bopam. Lolu mom mo am solo gagnons d'abord. Voilà, nañu gagner d'abord. après leneen yépp ñun la suñu biir suñu potum biir la dinañ ko dinañ ko gérer donc gaay yi maa ngi di béggee di leen ziar yéen ñëpp live nag mënul bari quoi parce que moment campagne lañ nekk mais de temps en temps rek bu ñu ko mënee dinañ génn xam nga waaw def benn affaire bu sew voilà maa ngi leen di bëgg bu baax gars yi di leen siyaar di leen ñaanal jàmm yàlla ñu yàlla may ndam yàlla ñu yàlla may ndam yàlla ñu yàlla may ndam ñu fekk ko ñun ñëpp tal ko daje ñu ñëpp Sénégal defar suñu temps bi mu nice voilà quoi ndam rek <laughs> ndam rek ndam ndam ndam rek incha allah donc gaa yi jaa ngeen jëf tawfeex